yaa ngi doon yeewoo ci biir dëkk bambiloor lépp lu ko wër dex la woon sunu papa yeeg sunu maam yi la ñuy wax dañu fi amoon ay xur yoo xamante ne ay seyan la ñu amoon boo déggee seeyaan fooy jël sa roosekaay nga dow ak sa tànk dunk rek génn du mot sax fukki mètre si biir suuf dëkk bu ñëwee mu amoon ay dex yoo xamante ne tey ay jësi ak ay ay ak ak ay jeun fi almond yu ñuy wax ay colère ak was waas donc euh, lolu motul ñaar fukki at ndox mi defi daan taabon taataan boobu moo waraloon xur yi wëron ñu ba sunu wayjur yewoon ya ñu ngi doon dundé mbéy ci base bobu lañ doon tundé mbéy bobu dekk bi peut-être dekk bu ndaw la waye la ko waroon yépp ay xur la su démé nak ba nga xamantene légui bu metti jaar na fi nga xamantene dem na ba xur yoy yépp ses euh, wow dëkkuwaay yaatu ba nga xamante ne dem na ba tax nit ñi sax dëkk ci foo xamante ne fii fu suufe la donc loolu moo waral tata tata yi ñu gis muy taa fu nekk ci gox bu nekk ci wàll wu nekk ci biir réew mi rawatina ñun su sunu dëkk problème inondation problème aménagement la dafa am fu fu kowee foo xamante ne foofu la mbir mi war a jóge ñëw du caageen ñiy dëkk ñi dëkk moom tooñuñu kenn xanaa kay dañuy wax ñan ñoo leen dëkkal ak bu ñu laataa dëkk ban pexe la ñu def ba installer leen plan d'aménagement du territoire dafa am plan d'aménagement du territoire boo ko xoolee am na ci ay plan directeur d'aménagement est-ce que lii ñu liggéey mbaa lotissement bi fi nekk correspondre na ak plan directeur bi xam nga plan directeur bi lan lay indi infrastructure yi war ci gox yépp ñoom dañu koy programmer ne fii ak fii ak fii lii lii fi am fi école mo fi am fii dispensaire mo fi am euh, fi terrain de foot mo fi am fi place publique mo fi am donc une extension bi ku mu neex da ngay lotisser nou mou la neexee lotissement bo xamante ne bi tey boo fekkee sa këru pap ñaari hectare la nga lotisser ko ñaari hectare génne ay mbedd kee lotissé lotissement papam ñetti hectare la mu def ko té benn mbedd correspondre ak benen mbedd bi

kan la man la yow la ñop la amul xaj ak seen fi wolo di joge fépp la jóg fight dox right boole doole manko on n'a pas crié gare tous on avait quatre barres que la misère se barre mbënn mi sénégalais yi jooy xool ni ñu dunde si biir xool la technique du ko tégi nangou li am te jema ul solution kon nañu jàppale ñu ne ci coowu ndox li mu jeex gaal seen dëkk bu ndaw la nañu bokk xex bu taw bi ñëwee taalibeex sama yaay bu taw bi jeexee xol yi fees ñuy jooy àndandoo bokk ndey ak baay bokk ne am yërmande ci sa morom teg naa xeer teg ci bolu chef wa keur gi sukku cookoon yëg naa tay lu xew ci bepp keur te yalla ji la soog bég naa tey bi ñepp bokke jóg di walu seni mbokk ci yiwu bi la bokk ma damay talal may faay lepp lu ma ci am ma jox ko samay niir tàmbuwuma damay maja yaay faal lepp lu ma ci am ma jox sa may ni yee fi wàcce ndox mi yërmande nangu suñuy gox ñu pencoo la waxtaan waaj génn ci kët ak jonn jóg ca teel balay naaj du discours du ni télévision la jam la daaw rey la ren loolu télévision la mën na la dal mën na dal sama dimbalante sa baax bu yàlla ñàkk jub dëkk bi bu bàyyi dundee li baadoo lay ñàkk affaire bi dëgg la bàyyi prata prata

suñuy gox ñu daal di jumuranke askan wi sonn soxla nu yërmande bu sebetee xale yi ree mooy naat wàcce yàlla ki yërmande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 so inama nodikogerenai yikwa yimikotin kotin miko nan kwanan mikonda ye kondany miko kononon mota nien jango yermande yeah. dan jangan baik Dau ku arade Dau ku jagade Bol ka dau go Mana ya ku mete Dana nere melani Yalla may ñu yermande Buur bi yalla ngala may ñu yermande Yaram Parce que dëkk bi dafa am euh, assainissement bu mu am